ودود كلي أبدا بالود وتأمني أثر الوقت ودود كلي أبدا بالود وتأمني أثر الوقت asalaamaaleykum mbokk yi tey la altine juróom-ñaari fan ci weeru maamu koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa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 yal na yàlla gërëm ko mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana bég xar kanam bi day leer ba mel ne dogitu weer nun nag xamoon nañu loolu ci moom xadis bi buxaari ak muslim ñoo nettali an kaab ibni malik radiallahu anhu ida surra istanaara wajhuhu xatta ka annahu wa kunna nacrifu dalika minhu rawaahu buxaari wa muslim مد سلامك بغير ود لمن ما لغزاك القديم مد سلامك بغير ود لمن ما